moo tax ma jóg sama citoyenneté sama citoyenneté en tant que sénégalaise mm-hmm. bokk si askan bi bëgg sama réew mu développé moo tax ma jóg da ne awma légitimité non waxuma awma base je ne suis pas fait comprendre euh, je je, demande euh, en fait je je je reformule ma question li ma li ma bëgg a wax mooy man maa bëgg a xam mm-hmm. euh, sa légitimité fan la nekk mm-hmm. c'est-à-dire soit da nga am base politique nga natt sa bopp ba gis ne war nga mën a samp sa ndënd wala amoo base politique nga mel ni peut-être Mimi Touré am na beneen aura bi. Mhm. nga war a mën a ñëw samp ndënd wala nga mel ni am euh, la dame de kii euh, ak candidate boobu. Ngom xaw ma Anta Babacar Ngom peut na entreprise bu rëy nee na mën na gérer natt na boppam ci loolu day ñëw wax. yow sa sa sa sa légitimité fan nga koy tirer. Mhm. j'espère que je me suis fait comprendre. allez-y su ma jëlee ñu nga xam ne damay jël celle qui a été la deuxième femme à être première ministre dans l'histoire du Sénégal indépendant qu'est-ce qu'elle a fait pour vous marquer à part d'avoir été nommée à deux postes voire trois mu nekkee si poste oui elle a, un bon parcours oui. sur le plan international sur le plan international je parle de mon cher pays li de ma wax ma lan la defal sénégalais waaw mais ci loolu ñëw na liggéey ñëpp a ngi liggéey yaa ngi liggéey non ah, voilà mais loolu loolu loolu kii la loolu loolu man dama liggéey d'avoir d'avoir une idée hmm. de de de de ban leadership la am en fait. elle a dirigé des hommes dans les années 90. voilà elle a dirigé des hommes. Binta ñu bàyyi la nga tontu ah rapidement. elle a dirigé dirigé des hommes. je ne compare pas. dafa ñëw mu joxe ko comme exemple. voilà mu léegi ma répondre ko par rapport à l'exemple qu'il a donné. ñëw nga nga ne Aminata Touré dafa ñëw moom am na légitimité même su amul base amul base. moom elle elle elle accepte ki amul base dem na ay élection en tant que pour la pour à à Grand Yoff amul dara là où elle est née même pas se présenter là-bas nommé nañ ko dem mu ngi liggéey comme tout Sénégalais mu ngi liggéey di am résultat mais en tant que euh, leader si gouvernement man dama koy wax man Bintu at ñu nekk sama génération gisuñu loo xam ne moo ko fi liggéey ñun Sénégalais ñu ne lii moom bu demee moom bu jógee mu dem toog ñu ne lii moom moo tax mu am moo def tout ba mu am moom doon na fi ministre de la justice man nga teg ma place Aminata Touré tout ce qui représente la justice dafay changer. mais yow wane woo ko fenn mais fu ma koy wane parce que occupé wu ma occupé wu ma benn fonction. voilà donc comment est-ce qu'on peut confier le pays à quelqu'un qui n'a aucune expérience dans aucun domaine en fait parce que loolu laay wax tu n'es pas obligé de nekk ci gouvernement bi mais au moins ci beneen domaine def nga fa exploit bu tax ñoo mais dama liggéey dama liggéey noonu su ma ñëwoon ma jël sama parcours. Mimi Touré avant nga koy xam dafa dem liggéey ñu fay ko salaire. lan la def si Sénégal avant nga ki gis mu dégg dafa dem liggéey ñu jox ko euh, euh, ordre de mission mu def ko accomplir ko. parce que dafay liggéey salarié la. mais bu jógee loo xam dafa jóg ne man sénégalais bii laa gis mu sonn di souffrir mu créé ko man ba ma njëkkee créé association xaaju ma mbag association boobu mu ngi existé ba tey kenn waxuma ko maa gis ne ñii ñu ngi souffrir. ñii ñu ngi sonn ma jóg def ko pourtant ñooñu lu ma def foofu moo gën a am solo que moom parcours au sein des Nations Unies parce que loolu sénégalais bi chaque jour lu muy souffrir gisu ko. mu nekk premier ministre gis ko man def naa loo xam ne ba tey ñu ngi siy bénéficié wu. dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw alors comment se mesurer à parce que moom. j'ai le droit moom je suis sénégalaise je vous le ce droit là mais dans la réalité wax dëgg yàlla. quelqu'un qui a géré des de hauts postes au niveau. mais quel est le résultat avec mais c'est c'est pas des résultats yu non on a besoin il faut arrêter avec cette façon de voir.